moom xaalis bi. kon yow dañ la signaler quatre-vingt-dix ans yoo xam ne Mali nga ko war def ci entreprise boobu. entreprise boobu fa nga ko war a def nee nañ la boo xasee signé xaalis boo maanaam xaalis bi bu génnee yow boo dee sax sa famille ñooy jot xaalis bi. ma ne ah bon léegi sama la ne ah man xel na ngoo gudd ma wax sama xel mais nangu ma ko wax ci baax. su waa ji génn mën na ko sawaay mu ne ma ko bañ na ko sawaay mu ne ma ko da nga may wax carrément lu fi ne ma irée na ko booy mu wax ma lu fi ne ngay wax ni mu ne ma ko dal sama xel ndax signé entreprise war nañu boo xam ne moo la war a dugal entreprise ba wala jox jox leneen ndax da nga ne ma naa la place euh, place bi cinquante mille lañ kii kee jàppal naa la place ma ñëw place bu gisuma ci dara léegi yow fu man lii nga wax dal sama xel wax ma carrément lu fi ne mu ne ma boo bëggee dégg-dëgg mën na sama benn xarit boo ma bokk nag di jàngee kër ma jibeel moom moo ma nax dugal ma fii léegi nag licencié ko man ñàkk fexe moo dugal lii moo tax man nax la andi la fi ma ne ko ah ne ma dama laa jaay benn société bu ñuy wax ay indien ñoom laa la jaay cinq cent cinquante mille yi ma di wax damay fenn ndax ku xam lu fi nekk doo fi ñëw nii ma xool ko xool ko nu ma koy def ma ne ko yow kon sa doom nday ngay jaay mu ne ma lii moo fi am mais léegi sa grand bu la wooyee ne dama fi def benn formation irsan ñu nangu sama xaalis lañ gis ci man nangu nañ ko ñu nangu jël sama crédit sama téléphone ñu woote ji woote ji mais sama téléphone dama ci réglé loo xam ne loo ci wax rek dama koy dégg ñu weddi crédit mu war a wootee Sénégal yëpp ma ne waa baax na abo léegi nag man maa ngi laal sama plan gis naa ñoo xamante ni dañuy ñëw di jéem a dëgg bopp ñu ne leen fii ñun lu ñu neex sa nga ñu dox lu ñu metti sa nga kenn ku fa ñëwee dugg nga wax la fa nekk dañu lay rey. léegi yow la fa nekk lan la. la fa nekk dara nekku fa tous dañuy nax fii Sénégal di informer Sénégal man gis naa ñoo xam ne nee ma seen nag lañ jaay tey la ko dem ñuy def fere banque dem te sama waa ji moo fa dugg sama doom ndey nee na ma defal fere banque nga ñëw lebal xaalis nga ñëw dóoral ko nga ñëw jaara jaay sa terrain bi nga ñëw ndax boo fi defee deux mois da nga koy fay. loolu nag dugg na ma ne ko man nag su may dee damay ànd sama kor ndax maa ngi liggéey maas maa ngi téye ay xaalis jàmbur mais xalaatu mu see ñëw sama xaalis bopp si laay ñëw nii laa ko waxee mu ne waaw waa baax na saa yow matalee nga ñëw léegi nag ba ma téyee quatre cent cinquante euh, quatre cent sama poos mu ne ma boo ñëwee ma mottali la ko ma ñëw ñoom fekk naa dara muñ ko mais dëkk bu boo xasee ba na jëm bañ teg la bët nga bëgg a retourné waat ne lu ma gis fi doyul la dañ lay jàpp yeew la ñaan nañu def ñu ngi wax ne suñ la bëggee jot téléphone euh, affaire bu doy waar lay ndax dañ la tiim ak ay gon maanaam ay arme ngir wax loolu lu amul loolu moom ndax dëgg la mais lu amul li dëgg la ndax lu ba sa sa waay ba ma yóbbu nee na ma nee naa ko sa nañ daw losement mu ne ma losement nañ bàyyi ba ñetti fan yi mat sa formation pare ñu dem fa losement moom dema fa mais xam naa ne jàmm ne ko fa amul kenn doomu Sénégal bu ñëwee dugg foofu wax la fa nekk de euh, fii neexut bul ñëw doo ko dégg fii neex na ñëw la ñu ngi si jàmm da nga gis ku jooy ba sa bët néew yi ba nga xam ne yow mii waaye loo mën a wax mooy fii neex na ñëw la ñëw lañ liggéey liggéey baa ngi léegi benn secteur boo xam ne ay bandit doo nga fa nekk lii man maa la ko xamal maa dem ba ci biir bureau ba fanaan naa fa deux jours def naa seen cours boo fay dugg li ñu lay wax mooy luñ bi maanaam suñ fekkar ku weer dañ lay rey man jël naa sama xel wax sama xel ne doomu aadama doomu aadama la mën a doon du ma jaamu ci yàlla ñu bëgg ko yàq si benn anam man naa dee man moo ma ko gënal ndax dañ lay détourné dañ koy rocc ci yow dugal la beneen formation formation moom nag dégg naa gars yi duñ ko tudd dañoo bari doole ay bandi léegi nag mën na leen nag man moom incha allahu rabbi damay dem amut benn doomu adama boo xam ne dafa nekk si doomu aadama ak si ay gan amul kenn ko fa ñëwee buuse ñetti fan yi bu ñu paree ci yow pare nañ ci yow bu la neexee sax ñu sànni la dafa am lu leen localisé foo génnee foofu machine machine da lay ñu jàpp la te nee nañ la si biir bureau bi jàngal nañ la boo dawee benn yoon ñaar ñett dañ lay rey mais jàngale wuñ la ko noonu dañ ne la code bi buñ la ko joxee nga jum dugg si mu signalé un nga dugg ñu la attention Modou Diouf ndax yow yaa moom code boobu ñu ne la waaw nga juum duggaat dañ dañ lay bloqué dooro a ko loolu mooy bu dee yow yaa ngi xel mooy loolu dañ lay rey ndax code boo xam ne xaalis boo gisoo xamoo fu ñu jógee yow bu dee yeewu nga tuuti da nga war a xam ne loolu du dëgg di yow Euh, Modou gis nga fa say mbokku sénégalais ak say mbokku Saloum Saloum sax ndax ñu nga kër ma jibeen sànq. kër ma jibeen waaw dëgg la man gis naa fa ñoo xamante ni ndeysaan xam naa leen seen tur euh, am na ndaw soo na ne xamante nañ fa mais du jaar ci turam man ngi fa kër ma jibeen googu sax la dëkk ak booy bu dëkk Ndiédiène diwaanu ñoor bi ñaareel koo laaj moo la fa la dëkk maa ngi dëkk diwaanu Nioro wala maa ngi dëkk fii lay Sénégal daal maa ngi maa ngi wax sénégalais ndaw ñi yeewaguñ ci affaire boobu mais man maa dugg man maa dugg ba xam la fa nekk damaa daw daw ba xilaate ba may dem ñaari saag laa yóbbu du benn saag bu ma topp ñu siwaat sama xaalis ba may dem lépp loo xamante ni lañ yaakaaroon si man maanaam ak ndimbal yàlla fu mu la fekk bu taxu doon ma yor xaalis boobu damay dee jaali bi ndax xàll boobu bii si maliens yi ñoo fay daw dara lu fay daw te ñu di yóbbaale kenn bii si état la ñuy liggéey amul kenn ku ñu yóbbaale ci àll bi kon ñoom fi dëkk ak dëkk réew ma nekk dëgg dëgg daal dafa sori ak ba ma kenn xamul nu mu toll da dox ba mel ni koy dugg si biir asamaan si montagne yoo xam ne kenn xamu nu mu toll da ngay dem ba fa biise yem fa biise dañuy daw ba fa yem si dëkk ba nga soog a wàcc jëlaat ay moto ñu soog lay jàllale foofu. léegi avant ñuy wax euh, naka nga def ba rëcc ba ñit si ñëwaat fii Sénégal ñëw fii nga xam mooy sa kër soose gi nga dëkk ñaata sénégalais ngay xayma jàpp ne ñu ngi fa. man daal la ma xayma daal téeméer doomu aadama yi moom day teg ndax bu ñu bu ñu yeggee santur sa yaram day daw kenn xam nuñ toll. te ma maanaam kenn ñëwut man lu ma gën a métti dañu woo say parents ne la waxal ma kaay kaay fii nga fen waxal sa parent ne ko lii ak lii moo ma kale léegi yóbbante leen ma xaalis bu buñ ma ko yóbbantee damaa jàll dinaa jàll maa ngi war a jéggi si barab sàngam maa ngi si pegg dex gi wala maa ngi def lii léegi xaalis moo ma tere kii xaalis moo ma tere jàll bu ma yóbbante cinq cent mille ma jàll wala def naa concours sàngam léegi admis naa léegi yóbbante le ma cinq ah Euh, ma kii ko sama concours mën a réussir wala xoolal ay fen maanaam boo xëyee ba jënd soo si fen ngay jàng ay ay fen rek ngay jàng léegi say parent lañ xam si kër gi ñu miraas ko jaay jaay ko dugalal la ñaar dërëm buñ la ko dugal ñaat dërëm doo ko ci teg bat am na ñu ne sa gannaaw ñoom lañ ko dugal ñoo ko retiré. yow ñaata la la say grand wala say wayjur yu ne ci li nga wax nii. léegi nag man nag ba ma déparé ba ma demee ndax ba may dem fii maa ngi yóbbaale quatre cent cinquante mille sa waay bañ compté. compte nañ trois cent cinquante mille léegi mu ne ma léegi nañu woo sa waay bu ñu dugalee xaalis cinq cent cinquante mille lay affaire toll léegi moom si gàttal sama dix huit mille mi ngi ko téyee pour maanaam euh, ba mu waa ji dugalee xaalis si gàttal waa ji dugal na ma deux cent cinquante mille ñu teg. maanaam sa grand moo la na ma deux cent cinquante mille laaj waa ji vocal ba ne ndax ñëw na mën na ko waaw ñëw na. waaw ma wax ak euh, sama doom nday ba fa nekk mën na ko gis nga mën na message bi ñëw na waaw léegi cinq man na mën na ko day teg du mat dafay teg. mu ne ma loo bëgg a lijjanti nii. te yow cinq cent mille yooyu gisoo ci dara. cinq cent cinquante mille ba léegi ma wax ay kay lañ teg fenn xoy xasa xusu xusu maanaam boo demee ba si àgg nga ne man signé tuma sax dañ lay yow nga signé force. alors wax nga tam ne buñ lay yónnee xaalis wala bu bëggee ñu yónnee xaalis nga oo say mbokk euh, dañ lay wax loo wax joo jox ma du dëgg. wax joo xam dëgg sañoo ko bañ boo ko bañee ñu rey la moo fa ne. léegi nag boobaa yow ndax soo koy wax dafa am ñu lay tiim mu am de. maanaam fi ñu doon nii seen logement ba demoo fa. waaye waaye logement ba man xam naa ne jàmm ne fa ndax dañoo am benn kër bu ñu ma dalal sa waa su ma nangoo logement du ma nangoo yóbbu logement ba logement ba jàmm ne ko fa te loolu moo fa a am képp ku fa dugg boo waxee la fa nekk dañ lay rey. léegi yow naka nga def Modou bëri ci ñëwaat fii Kër Sos. waaw léegi nag man léegi sama doom nday bi ba may expliqué sama ñaaw ci moom xam naa ne kii la muy wax tudd dëggati te fekk sama téléphone enregistré naa si loo xamante ni maanaam ku si wax téléphone li nga wax lépp dama koy dégg si la wax ak benn xale bu jigéen maanaam ne ko bu subaa nga ñëw fii diw suba lañ ko war a présenté waaw suba dañuy togg ceebu yàpp bu neex léegi après euh, euh, wax wax wax ba pare daal te ici ba ma jaay si biir bureau bi dégg naa ñu woo ko ci kaw félicité ko ñu di ko tëggal muy fecc gars yi na yi ne moom lañ annoncé moom dañ ko yëkkati tey quoi mais man maa ngi mel ko si déggu dara léegi dañuy wax baatu français yoo xamante ni man maa ngi mel ko si xamante dara mais lépp maa ngi for waaw léegi nag ma ne waaw baax léegi ma ne xaaral ma def samay pexe léegi waa na nañu léegi kay nañ bay léegi dagal nañ la ticket boo xam ne après bu ngoonee dañ fay dem ticket bi dix mille la ma ne ko man ma wax soxna ne ko yow bala maa ti dagal ticket ma tàggu ma ma li ñu tàggu amu fi ah, ma ne ko ma ne ma ko ma ne man amuma xaalis amuma bu ma ko fay ñu ne ma garaawut amut benn problème xaalis boobu garaawut mën nañ la koo fayal mën na la waaw baax na fekk loolu bu troisième jour matee ticket boobu muy wax gisuma ko comme waaye de xam naa ne ticket bi la ndax euh, kii bi la pièce bi la. waaw localisation bi bu ma war a monter la. léegi man yàq dégg naa loolu yëpp xam naa loolu yëpp fay naa sama téléphone dugal sama poche. mais yow localisation bi jotuñ la ko defal. non non jotu ma ko defal xaaruma ko fa ndax troisième jour bi dama faa nekk deux jours troisième jour bi nga xam ne xëy naa ba wàcc boobu ma gontoon rek lépp mat. léegi yaa ngi ne kër gi nga nekkoon wala fu ñu la dalal daanaka dafa xaw a doy waar ci nu mu nekkee melokaan ba léegi rëcc bi ne xaw xaw a nekk problème noo def ba génn foofu ba jaar bi ma lay ñëw Sénégal. léegi daal man samay pexe bopp léegi dama bay ba deux heures jot si bëccëg deux deux jours laa xëy laa fa def troisième jour bi si bëccëg ba ñu wàccee ay midi moo programmé sama lépp am na sama benn téléphone itel bu yàqu maa ngi ko fa ba ndax c'est que euh, ñoom booy génn booy dugg duñ bëgg nga génn ak téléphone. korog ba may xëy la programme mu yóbbaale sama téléphone boobu fekk sama soxna si moo ko mu yóbbaale téléphone bi falaa ko branché waa wax sawaay na ko est-ce que téléphone su ma branché duñ ko sàcc mu ne non non kenn du ko sàcc ma ko foofu teg ko fa téléphone boobu moom laa leen tayale bu baax bi maa ko nëbbu ba mu wàccee nag leer na ma tey jii damay quitté te ñoom nee nañ nee nañ ku daw bu ñu la jàppee dañ lay rey man moom nañ ma rey moo ma gën a may jaay doomi jàmbur wala may signé foofa leneen du ma ko def léegi nag si laa quitté ay deux ma jóg jàpp fëgg leen na la eh joo leen jàngi jot na ñu ne kii ñu ree na ki nant nant mais la ma fa nekk yëpp damay kaf di ree ak ñoom mel ku dara méttiwul waaye ba ma takkee samay dàll jël sama xaalis dugal sama poos jël sama passeport jël sama dante dugal sama poos na leen jóg leen boobu jàpp naa julli ñaan ci yàlla daal di sangu ñoom it ba ñu préparation mu dugg sàlle gi euh, mu dugg si douche bi jël sàlle gi ne damay dem douche si laa koré si bunt bi teg sàlle gi tëb miir bi jël la euh, douche bi boo xoolee am ko defuñ ko yora laa tëb miir bi wàcc jaar si ginnaaw ci laa daw nag ci biir dëkk bu bëccëg ndax c'est que guddi laa bëgg a nekk itam mais guddi boo duggee ci biir da ngay gis bu dee yow kuy xalaat nga boo dëgg tëddee ci biir du juróomi ponkal ñu ngi tëdd ci buntu néeg bi nga xam lay garder mais loolu yëpp comprendre ko mais mosuma lañ ci wax dara gis nga boo ma tamit bi damaa def nii daw laata ñi nga xam ne maa ngi ci douche bi wala nekkuma ci douche bi sori naa lu lu sori ci biir dëkk bi dëkk bu nekk tali bu nekkee penku xarfu laay jaar su ma dawee topp yoonu ndaw yoonu mag na moom du ma fa jaar c'est fini yoonu mag moom dama koy arrêté yoonu ndaw yi laay topp di dox di dox di dem di dox di dem ba sori am na ay moto trois roues ñi ngi tax ci foofu si benn dëkk ci euh, tali bi foofu ma fay fa cent franc mu yóbbu ma sori ci dëkk bi nekk gars yi saaroo nañ ma di ma wër ci dëkk bi ma ne waaw ay côté dix-neuf heures ba ñu jullee noonu ba pare ma dem ba jub benn hôtel sama xel may na ñoom ñii ñoom moom yi xaaral ma moytu hôtel bi si laa dem nekk gaa yi dañoo def cercle wër ma si laa jot benn grand boo xam ne xàmmi naa ko nii ma xool ko sin beeg si laa xool ko bi si laa xool ko bi xool daal yi mais dafa sëgg téléphone téléphone rek na nii xam naa ne mais xam naa ne kii moom war a jàpp si téléphone bi moom war a weex te nee nañ la boo dawee dañ lay rey man léegi man nañ ma rey wala ma reyanteeg ñoom ma génn fa mu sëgg si appareil ma xàmmi ko xàmmi kanam gi gis nga dama mel lu koy romb dóor ko mu daal appareil bi daanu ma njëkk moom mu njëkk ma ci appareil bi fa lañ nekkee di kërti kërti man ak moom ma gisoo bien mi sax gisoo wéroon ni sax suñu ah, yi ma gis ni sa bi nii jàppante bee ko def jàppante bi léegi fekk mi ngi téyoon benn appareil euh, moom téye moo wañ si loxo bi mu bañ na du ko bàyyi ma dëgg si loxo bi abbi maa ko ëpp doole ma ma bës fii sama loxo euh, tànk bëgg a loxo bi mu soo a bàyyi appareil bi kooku sénégalais la kooku sénégalais la léegi maa ngi ko maa ngi ko dugal si benn kii maa ngi ko dugal si benn batiment boo xam ne dañ ko tabax sancaguñ ko rek mais dañu dañoo rey porte yi nii ngi def ay falanteer fa laa jaarale appareil euh, appareil bi jam ko ci biir appareil boobu dootu woo si fini waa ji fa laa ko weq jéggi ko jàll daw daw daw yi métti ci biir dëkk bi ay côté timis vingt deux heures ma daal di jaar noonu di dox vingt deux heures dëkk bi nag moom kenn xamul mu toll si àdduna vingt deux heures maa ngi daw si biir xàll bi daw naa ba génn sorti dëkk bi amatuma foofu fanaan mënumaa wax ñoom France mënumaa wax ñoom bambara te te aussi boo fa toogee dina jëm expliqué police mën euh, police mën na la faa fekk jàpp la nga gën a sonn baa ñoom ñu rey si lu nekkul dara ndax dañ lay yaakaar sàcc wala bandi wala leneen ma mm-hmm. ne lii daal dara jaru ko ay xarama dem yàlla rek ko ànd yàlla doo daanu léegi si laa dox dox dox dox dox ba génn dëkk bi lu bari léegi benn miire ngi foofu miire bi dañ koo miire léegi miire bi dañ ko miire ba mu def ay six rounds noonu ma ne daal yaakaar naa fanaan fii bu la fi jaan yi nga dee wala bukk yi lekk la sax moo gën yow nga nekk di signé jaay doomu jàmbur wala ngay signé leneen miir boobu laa jéggi bës nduur ya fa nekk ba mu baax mu tëdd fa ko fa sawaay càmm ci laa dox ba si àgg ma ne xaar ma yëg miir bi cëppeelu si ginnaaw miir bi ba ma cëppeelu si ginnaaw miir bi léemu ayaati kursi am na garab gu mag gu nekk ne ndeysaan mais boo bëggee dee maanaam yooyu sax doo ko tàll moo tëdd foofu fa laa tëdd boobu ba set ak waxtu wi ma taxaw. ci ron garab googu nga fa am. ci ron garab gi garab gaa nga ne miir baa ngi nii si pegg yoon bi mais nag miir bi lu ma si tëdd tëdd ay vingt-trois heures dégg naa oto ñu ngi na nii di jàll ñu defee defaan nii ma xam ne ñii am nañ ko ñu waaye man ma tëdd si gannaaw miir bi rek ba ma xëyee nag si laa yëg si benn garab gu mag noppalu gën a dallu ba onze heures ba ñu war ma seeti ba retourné waat ma soog a jël yoonu ba ma bi ànd ak loolu yëpp lekkoo naanoo ba ma demee daal ba ci biir dëkk lekk naa fa benn lekk bu ñuy wax lekku bambara yoo xaw ma tóo lañ koy wax xaw ma benn affaire bu weex mi ngi ànd ak ñeex loolu daal xam naa lekk naa ko foofu si biir dëkk ba après. dëkk boobu ban dëkk la. dëkk bi mu ngi tudd Seko benn région la si Mali région bu mag la si Mali. Euh, xanaa bon ay doomu sénégalais fan kese fa ne. ndax amul ndax amul aussi ay doomu maliens yu fa ne. doomu maliens yi da man de ñu ma déggoon ñuy wax bambara ma yaakaar naa ay maliens la ndax ñaar ku si laaj Sénégal la wala département Nioro la dëkk wala Nioro waaw nii ak la fa nekk ci mbooloo man maanaam mbooloo moo fa nekk rek kéemaan la kon ñu xaw a gàttal sëñ Modou euh, lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoom instant bi ñu ngi fi ñàkkul ne ñu ngi oo ngir ñu dem rejoindre seen moroomu Sénégal yooyu ci jaay ni nga ko tuddee ñu mën a utiliser langage boobu ci ab entreprise bi ne sax existé wul. dama ne la maa ngi maa maa maa ngi maa ngi woo sama moroom jeunes yëpp nag fii te ay jeunes yi ay xale yi ndaw ñoo fa ne ñoo xam ne seen àdduna yàqu na quatre-vingt-dix ans lañ lay signalé ndax la signalé boo ko boo nangoo. da koy signé boo bañee ñi yow la nga signé ko force lii moo fa nekk sa doomu ndey moo la yow wala sa xarit xaqan man gis naa koo xamante ni ku ko tuddee doom la fa dugal koo xam ne dafa xam ci moom confiance mu nekk xaritam xaqan mu tuddee ko doom moom la fa nax bu dugal ko fa ñoo fa nekk da ngay gis ñu fa yendoo jooy mais saa yi wala nga wooyu fii téléphone ñoo la ñu ngi si jàmm ñu ngi liggéey ñëw leen fii neex na loolu nga mën a wax boo ko xuddee lii moo fa nekk mbooleem sénégalais nag xam naa sénégal yeewaguñ ci man dama rëcc man fi mu doon nii ba ma fay génnee sama bakkan fii laa ko teg rëcc baa yi ndax moo moo ma gënoon lofan lofane dund dund boo xam ne kenn xamul dëkk ba amul lekk neexut lekkuñ defuñ dara bu ñu xëyee boo demee benn kañ bu ndaw lañ lay jëndal détourné la si yoon jullit gi nga nekk dañ lay si détourné dugal la si benn relation boo xam ne bëgguma ko tudd léegi dañuy xëy jëndal benn kañ bu ndaw ak biig cent franc ne la nga commencé ni ngay commencé euh, kii alifun baawun fii noonu ngay commencé mbir mi foofa wax nañ tam ne da ngay bind sa turu papa bind sa tur yaay ak sa famille ñi nga xam ñëpp. deux cent personnes ci laaj sa turu man fekk naa sama benn waay bu ñu koy bindal ma nga toog ñu ngi koy bindal xalaat ba na man ñu ma xam jeex na gars yi na ko dara ñi nga xam ci mbedd mi bindal. lan lañ jublu ci loolu. sama waay yi lu ma wax maanaam kooku yëgguma fa waaye la ma wax nee na ma ndax tur yi yëpp bés dana ñëw sax copain yoo fa nekk nga ñaan leen xaalis loolu mooy maanaam kon danga dañuy seet tur yi ak ñu xam téléphone ak ñi nga xam ne kon sa com yi nekk fii léeg-léeg nga ñaan leen cinq mille wala deux mille lu waaye xam dugal la ko nii waaye xam naa ne tur yooyu moom pour affaire dóor dóor dóor xeer moo euh, dóor waar moo fa ne ñoom léegi nee nañ business bi dóor waar la ndax lu fi nekk ku fi ku fi wax dañ lay rey waaw amul benn Sénégal bu ñëwee jógee fii dem ba foo wax la fa nekk ku ko def nii lañ lay def ren sax wax nañ itam na képp ku fa dem dañ sàkku ci yow yóbbu fa tant de personnes six personnes ba ma demee ñu ne ma affaire bi de produit la produit bu ñu jaay bi la ay euh, dañ koy libéré produit bi mu ngi jógee ay indo ko muy jaar fii ñëw ñëw poor bi ñëw ñëw euh, ñu indi ko Mali léegi ngeen libéré ko si oto yi waaw oto yi nag da ngay teel a xëy xëy huit la wàcc nangam nangam ma xëy suba ñu ñëw waa na ma léegi kaam expliqué leen produit bi mu gën a leer diw bi léegi yow bindal nañ la sa produit bindee nañ ko indo xawma indo mi ngi war a jaar ci Sénégal mi ngi war a euh, ñëw ñëw port bu Dakar ñu indi ko fii fekk suba nga si gannaaw suba nga si jot ma ne loolu xel nangu ko luñ luñ bindee bitim réew mu war a ñëw fii fii nii si ñaari fan waa na xel nangu ko léegi nag ñu na ma léegi produit bi fu ñu doon nii dañ leen koy wax pour muy leer jaayloo wuñ la xar jaayloo wuñ la béy jaayloo wuñ la fas néeg lañ la jaayloo ak i noppam ndeysaan ba benn pël bu ma toog nag mu ne ma néeg ak i noppam nuñ koy jaayee kanam moom dañ lay jox nit dañ lay jox jox nit ki nga moom dem jaayee ko ñu ne la déedéet naxal sa doomu nday lañ fi soxla wala sa xarit xaqan wala ñu ñëw toog fii nga tey leen six personnes yooyu deux personnes lañ la njëkk wax bindal la ko après nga dem ba si àgg ñu na la six personnes lay doon ndax yow de nga jaay seen njàng mu bon yàlla bu mu wax am sax moo fa ne man dama rëcc kor màggalu tuubaa si suba suuru màggal gi ay onze heures laa ci Kaolack ñëw semaine semaine bu ma déparé fii dem ba Bamako dem ba Mali ñaari fan laa fu tëdd ci néeg ñaari fan lu ko mooy yëpp ci àll bi laay fanaan ndax takk der yi du ñu wëreelu sax bay si si fi nga xam ne foofu ngeen nekk ngir saytu askan non non Mali boo xoolee seen kaaraange sax wax dëgg yàlla am Sénégal boo génn Sénégal nga xam ne Sénégal neex na am na kaaraange am na lépp Mali da ngay dox doo dajeeg sax militaire wala police doo dajeeg ñoom ndax Mali àll bi kenn xaw nu mu toll ci àdduna Mali trois fois Sénégal ëppee na ko ndax ñu région ba ñu nekkoon rek parce que toll nañu Sénégal ab àll kenn xaw nu mu toll ci moo Modou bon ñu ngi lay gërëm di la sant. way Thiam maa ngi lay delloo siyaar bu baax a baax dinañ gërëm dinañ sant ndax seen rajo bii yàlla na yàlla yàlla na yàlla dimbale. may la may la ay matu ay matuwaay yu baax a baax a baax. yow ba yow ba dem tàggoo sa papa de am de. paa bi fu ma mos a dem ci àdduna dama koy tàggu mais kor dafa mel daw dañoo teg sama bëri loo ko waxoon dama ñëw na ko ah papa man de dafa ma lijjanti nga xam naa ne su ma ne ko Mali rek mu ne ma déedéet sama sama turandoor bii dem naa ba euh, Sambande ma ne ko bàyyi Modou mu ne ah ma ne ko man de dama fi woon am lu ma bëgg léegi mu ne waa baax na ma ne ko léegi maa ngi dugg si gàll bi su ma génnee danaa fi ñëw mu ne ma waa baax na ba léegi jaaraatuma fi moom te fu may mën dem danaa ko tàggu kor ba may tàggu laa def nëbbu nëbbu carrément laa def laa def sama yaay ji ma ñëw na ko yaay mu ne maa ko mën de maa ngi ñibbiwaat boo ne maa ngi ñibbi rek ñuy jàpp ne Tuubaa nga jëm sama saag bu mag bi nga xam ne amoon dama ko nëbboon yegsi bu sax ci kër gi su yegsee rek nit ñi xam fu mu jëm saag bu ñaar ba may dem ñaari saag laa fu yóbbu ñaari saag amul benn moom ci topp ñëw nii lii moo fa nekk képp koo xam ne yaa ngi fay dem say waajur duñ nangu te affaire yi teg ci affaire xam ne ay xërëm neex yàlla di yàlla lañ lañ lay wax boo njëkkee yegg fii lu ñu neex si nga ñu dox talal lañ xool ñu dox su suuf terrain bi liggéey bi liggéey bi gaaw te ña fa nekk nag yàlla weer na leen te yàlla na yàlla gën a weer jeunesse bi nag diwaanu Kaolack diwaanu Kaolack wala Sénégal sax laay wax senu Sénégal nañ yeewu yeewooguñ ndax ñu bëri xamuñ lu fi ne bii man maa man maa fa dem def naa fa deux dem dama leen rëcc te buñ ma jàppoon dañ may rey waaw senegal yi fa nekk nag wax dëgg yàlla man su ma xamoon yéene ñu def bañ ñu si man moom wax dëgg yàlla loolu moom moom def na ma problème trop trop man ma ñu si rek mais Sénégal fa nekk ay responsable yoo xam ne da gis ñu toog di jooy naa man maa ngi bàyyi sama jabar kër ga maa ngi bàyyi sama yaay kër ga maa ngi bàyyi lii war a maa ngi bàyyi lii war a maa ngi bàyyi lii